booy bokkul bañ jaare woon ak garaam lañuy ñuy jaar ak moom laa la wax te bu leen fàtte ne jàppal tey maa la ko wax tey ki leen daal ñaari yoon garaam ko daal saay gis nga lamb lamb daal dañ buñ koy buñ koy di analyser ci foofu ah lu tax waaw ñun ñun ñun trio la boo xam da ngeen di daanante kay jiital Pikine Eumeu Sène dañ ko tër tëraat te bu soobee yàlla comme li la saay wax rek dañuy wóorewaat seen boo xam ne. Modou ko day jëfoo. a gën ku nekk daanaka la parce que yéen. ni ngeen daal ñaar yoon. bala ngay da ñaar yoon monsieur daan ko. trio boobu kenn mënu koo ci nga daal ngeen Modou Lo kenn du leen wax Modou Lo. yéen xam ngeen bëre moom xam-xamu bëre jeexee ñu doog koo daal waaw fii di laajee wala. waaw fii daa am lu ñu yóbbante. ñu wax da ngeen a duggoon bu ndaw xasaw far nga dugg ko. non seen xalaat lañu wax rek. yéen yéen am loxo bi ñu tontu. yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm man lenn rek laa lu may wax. yàlla nañ ko yàlla baax en tout cas daw xasa bu dugg ci poste wam fay boobu fa rek gën a set wax ji bariwul te bu duggee ci géew gi bandi la bu duggee ci géew gi ñu yëkkati loxo. yàlla bu ndaw bi est-ce que li ngeen bëgg ngeen wax rek. est-ce que wax la waxu faaw rek. non man yi gën a mën a xam Modou yéen a ma gën a xam Modou. waxam bëriwul. waaw loolu am na waaw loolu daanaan la. daanaan la daanaan la moo tax gars yi moo jaay waaye daanaan lay dajal comme moom it. daanaan la kenn weddiwu ko. waaw kay mais su ñëwee fekk si beneen daanaan. da ko laaj dama war mu wala mu jël ko mbal fa wala laaj am seen. ak grand ba pare. kii yee Modou Lo dafa waroon ak Eumeu Sène kii yee Modou Lo. mais kii Eumeu Sène la tur kii Boña la tudd. est-ce que benn la. mais bu bu Boña ngeen jël. ngeen ñëw ne est-ce que benn la. yow xam nga ni Modou jaruñu waat Modou adduna bi jaruñu waat Modou am na seet bu mu ñëwee ñaari yoon lañ ko benn lañ ko firip benn bi ñu dóor ko na seet da koo daan deux fois. Balla nga wax ah mais Balla Modou Modou. ñun ñoo ñu si kaw Modou loolu lañ nii. ah mais yaa dugal ñee ma nekk fa nekk loo xamante ne bi Pikine lañ nekk ba léegi nii génnuñu dugguñu géej waaj ñu ngi biir Pikine trio bu nekk daanante la ñoom seen biir dëgg la wéy diw ñu la ay trio nekk daanante la dafa waroon laaj Eumeu Sène si kii Modou Lo mais ngeen duggoon Pikine waroon faa dajeeg euh, Ama Baldé combat ba yàqu ngeen def biir Pikine la moo la moo wala moo waral ngeen def biir Pikine te waroon du rek Ama wàllam léegi mu ñëw wàllam mu ñëw nga tey rek nga def nag du course du course nag tànk rek ku nekk di nga jël sa wàll quoi étape étape la. ñu bari ñu bari dafa daw parce que ama blessé dafa doon ko ngeen daw moo ko mësul daw moo ne toos lam ko yàlla amateur wax loolu li nga nit booy wax waxu caaxaan yàlla day àtt yàlla mu doon xale bu góor xam nga yàlla xam nga yàlla dafa mën a àtt xam nga yàlla dafa mën a àtt fii la Modou blessé àdduna yëpp di wax barke yàlla mais yàlla moo mën a àtt tey xolal xolal li dal ama kenn yéenewu ko ko mais yàlla jaam ak pexem yàlla dogalam su sañoon day bëri te moom daanaka mu ngi woon ci contrat waaw te amaana moom tamit yéenewul Modou Lo toog bañ a bëri comme ni ko ni mu amee occasion dem jël beneen combat ñu ñaanal ko ci noonu yàlla dogalee que mu am blessure Modou am beneen combat te teewul Modou su paree ci combat bu leen di ñu bëri. amul lamb boole na la bu bëri dañuy bëri boole kenn ku ne da ngaa lekk avance. ma ne la moo tax ma ne la ñoom ñaar ñëpp bu ñu wéree ku nekk ab bu soobee yàlla su neexee yàlla ci kàttanu yàlla eh, waa Pikine baaxul. loolu force la la a waa Pikine. parce que am nañ laamu ji bu muy yóbbu. Ama Baldé dafa asma lu leer laa la wax Ama Baldé du Samba Yoro dafa asma mais mënul tenir Modou Lo dañu wax li fi nekk kan ne Ama du téye Modou Lo. jarul yaa mos yaa xam te mos ñun suñu réew mi dañoo dégg ne Ama Baldé moo leen mën ak Ama Baldé léeg te Modou Lo moo nekk seul mbër boo xam ne lu mu la wax da koy def respect adversaire am Ama Baldé bu yar woon ñu jël ko dafa réew. non waxi jël waxatuñu ko da ngeen di lekk avance boobu. non avance day xaar day xaar da ko mën a neex day xaar. entourage baaxul. leen defal entourage am ñaara am bëgg jël ba daw. mais ay xaar amu fi. bu yaroo ñu may ko avance ñu may ko. ñu may ko bëri moom non non bëri da ngeen di lekk avance. non papa bi nit ñi ko bëgg. nit ñi ko bëgg. waaye moom tamit na na yaru. contrat la ñu yéen di bëri. contrat boo ñu waaye moom lan moo tax lan moo tax xaaruñu mu dem di jël keneen. waaw parce que da ngeen di gaañu woon ak ñu koy xaaree. non ku gaañu mënuloo mënuloo gaañoom du yàgg. Ama Baldé bi gaañoo da ngeen di xaaraloo da ngeen di bëre entraînement moo nekk ci yaramam gaañoom du yàgg. yéen Ama bi mu bëre si da ngeen di ah. xaaraloo da ngeen di bëre. non ñun moom xaar ñun ñun duñ ko xaar. waaw kon kay kon kon mën naa def waaye wii di jaaree naa da ngeen daje de. waaye non ñun bañ ñoo daje ak moom parce que ñun xale lañ ni moom. mënuloo du mag xale bu ndaw la. mënuloo naanu protéine mënuloo asmawul mënuloo jawetul naturel mënuloo doole bu mu amoon moom la amaat xool xanaa doo dosaan mënuloo ku asma. ama dafa ama xaar te ama xam na loo war a def. na dem xool ay adversaire am du diw du ma diw ama dina yéex a bëri mbër bu mag à part Modou Lo que lu muy daw lu muy daw ci làmb yi dafa bëri. ah ama la dajeer. waaw ah, kon moom ah. seen seen seen papa jeex am seen papa yi na. kon nag jeex na ñoom ñoo mën a mayante xaalis nañ ñëw ñu bëree. Boy Niang Ama Baldé combat la tamit. waaye du yow xalaat loolu daa mën a nekk. waaw dañoo war a nekk yow xalaat Modou Lo. Modou Lo Modou Lo a léegi daal Modou Lo léegi daal Boy Niang su bëreeg Ama Baldé Modou Lo bëri Franc non loolu mënul mënul nekk. kon ko. non yéen ko liggéey ñoom ko ñaafi ne. non non non dafa faral moom lañ ko. waaw dañ ko Franc. eh moom la Franc.